sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahul jalila inna allazina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 yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñi nuyu mbokk jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp nuyoo bu sell bi nuyoo lislaam ñi dellu si waat suñ jataayal yóbbulum ndaw ñi mooy jataayal xam-xam jataayal fàttalikonte ñu tolloon ci mujjantelu téere bi ñu doon jàngale mooy zaadu zawi taxallumi tollu nag fi sëriñ bi doon soññaa xam-xam di dénkaane xam-xam ci mujjantelu téere di wax ne xam-xam bi ci xam-xam yi kat mooy tawxiid mooy wéetal borom bi ak xam ko ak xadiis yonente bi ak tafsir alquran ak jumtuwaay yi nga xam te ni mooy tax sag lislaam wér lu mel ni fiq xam-xam fiq mooy sariya di wax fi daal di fàttali xam-xam yi gën ci xam-xam yi ak nit ki ni mu war a farloo ci sàkku xam-xam di wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sàkku xam-xam farata ci bépp jullit moo xam bu góor moo xam jullit bu jigéen bi moo tax muy wax ne alaykumu dénk naa leen kon day dénkaane foofu mu ne bu soxbatil axyaari ci àndaaleeg way tànneef ya fii talabil ilmi ci sàkku xam-xam ga li wajhil baari ngir jëmmi yàlla mi aji bind ji kon dafay dénkaane fii mu nekkat yéen ñi nga xam te ni da ngeen di sàkku xam-xam maa ngi leen di dénk te ngeen di sàkkoo xam-xam boo leen di wut ñoo leen di àndal na ngeen tànn ñi nga xam te ni ay tànneef lañu bu ni ay tànneef lañ nag mooy na nga xool ña gën seen jikkoo gën a rafet na nga ànd ak te fa ngay sàkkoo xam nga ngay ànd ak moom na nga ànd ñoom te yàlla rek tax mi nga xam ne ngay sàkkoo xam-xam mu ne wastaibu na ngay àndaaleeg ya na nga àndaale ñi nga xam te ñoom lañu ñu tànn mooy ñi gën ñu fa a rafet jikko wala mujtahida ak way farlu ya na nga àndaale ñi nga xam dañoo farlu wala mustaqima ak way jubal ya ñi nga xam dañoo jub fatanaalu kon mu nekkat booy àndaale na tànn ñi nga xam ni ay tànneef lañu way sàmm lañu mu ne mu ne wac wastaxibu na ngay àndaale al way sàmm wax na la fee ne rek na nga tànn rek ñu ñu tànn na nga tànn daal ñi nga xam te ne ñoo sàmm ku sàmm nag boo ko déggee mooy koo xam te ni dafa fonk diineem ñu ci def lay kàttanam te nekkul ci gën mooy yàlla nee na nga ànd ak ñooñu te ànd ak ñi nga xam ne ñoo farlu te jub boo àndee ñoom kat di nga am ak jub wàccani na nga wattandiku mooy na ngay sori alkaslaani way tayel ya wal muxaafala ak way sàggan ya wal mufsida ak way yàq ya alfataana ña di way fitna taxawu kon di nga làq al amala ndibét ya ne booy tànn na nga tànn ak ànd ak ñu sawar ne waaye bu la ànd ak ñu tayel ña de bu la ànd ak ñi nga xam te ni tamit ay way yàq lañu bu la ànd ak ñi nga xam te ni tamit dañoo sàggan bu la ànd ak ñoom de boyu sàkko xam-xam ñooñu de bool na watandikoo di nga làq bëgg mooy seen nibét yi bëgg ci jàkk sàkku xam-xam fekkee wattandiku nga ànd ak la wax mu ne lu tax mu ne isil xariinu ndaal woy ànd noo wax mooy ko nga lëkkalool yàqata di dana way bil xariini te ka nga àndalool mu roy ci moom kon nag na nga ànd ak koo xam te ni ku baax la koo xam te ni boo ànd moom la ngay roy moom nekk lu baax kon mi ngi noonu mu ne fa man yu saaxi bi ku àndaalek ak rasida aji jub ja sadi kon da nga jub mu koy xam dafa ànd ak ku jub nag ah bu yàggee da ngay jub rek ànd ak moom mu ne kon xunan taxa fii la yam wala xunaa fii la yam fii yam téere bi xunaa fii intaxa la jeexee kon téere bi fii la mu ne walhamdu cant lillaahi ñenn yàlla mboolem xeetu cant yi ñenn yàlla ni ko mu teralee moom yàlla ala imaamil ulama ci njiitu koy xam te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibn muhammad min boroomu xam lu munaahu lébét ya mu ne daal mbooleem xeetu cant yu man mën doon rek nee na yàlla la ñaan yàlla mi nga xam te ni moo tëddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonente bi wa sallam nga xam ne mooy jiitu way xam yi borom xam-xam yëpp sallallahu wa sallam mooy seen njiit wax ne yàlla ko yàlla dool tedd feek kii xam lu ca nam war a xam loo di ànd ak ñam wara a àndal jaar ci yoon wa mu war a jaar ma ngay am lam bëgg te mooy am ak xam-xam bu am ak ragal yàlla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 séddale ñu ko ñu nekk yiw woo xam te ni ëllëg yomal xiyaam yiw yiw bu ñuy ndamoo la ndax ak màggam ak teddaan ñu yàlla defal taw feex ñu juga rafet defal ñu xewal yi bari te barke rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram in uriidu illa al-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey